direction place de l'obélisque avec Cheikh Bara borom def gis waaw comme ni ko gars yi waxee rek suñu milliard daal milliard daal du rees waaw kay na milliard rek jëm waaw direction euh, place de l'obélisque ak ànd ak waa kër Cheikh Bara gis nga délégation mi ngi nii waaw sëñ Bara Ndiaye ngi noonu patriote bu mag bi ànd ak délégation direction place de l'obélisque suñu milliard daal du rees waaw milliard daal du rees ci àdduna ok ñëpp waa Kër Cheikh Mara Ndiaye la te bu ci nekk dem na ci ay nit ñëpp ay patriote lañ waaw Cheikh Mara Ndiaye direction place de l'Obélisque ah, direction place de l'Obélisque li ah, marche bi en tout cas suñu milliard bu rees ñu ko gars yi waxee ñëpp délégation Cheikh Bara Ndiaye la borom def bis le grand patriote Cheikh Bara Ndiaye ànd ak délégation ah, waaw mais loolu Cheikh Bara Ndiaye borom def bis waaw mi ngi nii Cheikh Bara Ndiaye borom def borom def gisal ji direction place de l'Obélisque waaw ni ko gars yi waxee suñu milliard bu rees le grand patriote ak direction place de l'Obélisque ak waa kër Cheikh Bara Ndiaye borom def gis délégation baa ngi noonu ah, gis nga otom yaa ngi noonu mu rangalay otom yëpp ci ay nitam di jëm fële ca place de l'Obélisque ci marché bu mag boobu ñu nga xamante ni dañ fay dem pour euh, gars yi luubal suñu milliard suñu milliard daal mënta rees waaw oto yaa ngi noonu ñu gis ko waa kër Cheikh Bara Ndiaye moom borom def gis Cheikh Bara Ndiaye moo nekk euh, Ba le grand patriote Cheikh Bara Ndiaye ah, bëgg Afrique waaw gis dëgg di wax dëgg moom gisul dëgg tey ci tànkam Cheikh Bara Ndiaye ko patriote bu mag bi dafa gis dëgg ah di wax dëgg mi ngi noonu gis waaw mi ngi noonu soxna Nango soxna Kati ñëpp ci marché ba doomam Sidi Mokhtar ñëpp bàyyiwul kenn kër gi ñëppay dem ñëpp tout le monde bàyyiwul kenn ci kër gi jànka yeeg boo yeeg tout le monde ñëpp la ramassé kii moo bëgg Sénégal kii moo bëgg réew loo wax